ma sadd bay di tey woote bisub seex jiili bul wuute ñëwal nag mel ni kuy rooti ci teeni ngërëm yu dul jeeti ñëwal ngir sàkku loo bëgg am ci yéene ji sell ànd ngëm bisub yërmande waaju ko xam fu ñuy wooteeti gis kooti borom bis bii di sun ilimaan ju màgg ja lool bari kiimaan te doon ko rafet le ay melokaan ba tax ñun diine naw eh, kooti ñetteelu secteur bi mooy wàllu wër gi yaram wër gi yaram ak cet moom lañ boole woon ak cadre de vie ndax yet ñett yëpp foo naa ne dañuy dañuy dugalante donc loolu également du am jafe-jafe par rapport au poste avancé lim bi nekkoon juróom ñu war koo samp ci ay bërëb yoo xam ne comité bi identifié na ko pare leneen li également service d'hygiène mooy désinfecté yenn dëkk yi dëkkuwaay yi loolu également ñu war koo tàmbali peut-être le 25 juillet donc foo naa également service bi engagé wu na pour mun koo def ci diir bi nga xam ne noonu ngeen ko noonu ngeen ko bëggee wàllu cet gi également ngeen jàpp benn bés muy le 22 juillet mu nekk journée de nettoiement phare maanaam mun naa ne benn bus la boo leen tànn mais cela pas dire que tamit yeneen bés yëpp foo naa ne muy la mairie foo naa ne ñu ngi ci ak yeneen tamit taalibe yi mais li ci des it ICG bi nga xam ne structure état la dina ñëw aussi ak ay moyens accompagner initiative boobu lëkkaloo aussi ak la mairie de de Touba Mosquée bi nga xam ne aussi moom it na ci dugal loxoom ak ak ay kon ne suñu boolee doole yooyu ak doole taalibe yi am nañu yaakaar ne bés boobu également dina nekk une une réussite incha allah rabbi leneen également peut-être loolu doléance la bu ñu ko ci raax rek muy problème mu ambulance bi nekk centre santé bu Bagdad loolu également dinañ ko yëgal suñu kilifa xool lan nañ ko mën a saafara ci biir bi nga xam ne moom la moom mooy li gën euh, wàllu assainissement mooy li nga xam ne également muy volet bu am solo mën nañ ko dugal sax ci wàllu santé loolu également dina am ñeenti camion yoo xam ne donc ONAS engagé wu na indi ko si diiru ñeenti fan pour ànd ak yéen également ci organisation bi boole ko également li nga xam ne mairie Touba Mosquée mi ngi ko ciy tàmbali encore dugal ko ci volet assainissement donc yaakaar naa ne loolu également ñaari suñu lëkkalooyee li ngeen ci bëgg suñu borom mën nañ cee defal defal ndam wàllu ndox foo ne suñu neen ndox également Touba dina ci am liggéey boo xam ne yaakaar nañ ne ñu ngi koy tàmbali jëmale ko ci peut-être grand màggal may bii nga xam ne moom la ñu dëgmal muy wàllu citerne ak bache à eau yaakaar naa ne le service technique engagé woon na que ne dina jàppandi mais li si des rek mooy un suivi laa ci ñuy jeexal dinañ ci wax nan lañ koy toppee yenn forage yi il a dit que donc déjà jot nañ ko dépanner donc li si des rek mooy ñu jéem a améliorer ba mettre en place des citernes pour pallier ndax ñu ne du am à cent pour cent su dee jafe-jafe am na rek citernes yi mun a jël teel a ñëw au secours pour mën a wàllu askan wi ci wàllu ndox ne ku ne màggal aussi ndax wax ndox donc loolu moom euh, dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax li si des mooy euh, wàllu commerce loolu sax foo naa dañ koy rafetlu ndax déjà li ngay saytu moo loolu mooy liggéeyu service technique yi li ngeen demande mooy ñu fexe contrôler donc loolu foo naa ne mooy këru métier service technique yi donc ginnaaw donc dañ ko loolu bu baax bi nga xamee ne aussi comité d'organisation bi sàkku na que na si wàllu commerce ñu saytu ñaam yi nga xam ne moo ne ci marché yi ci walu également santé animale muy les services techniques de l'élevage mon contrôle également les produits d'origine animale donc lool fonané c'est ne seenub la xana kañ dañ koy gëna renforcer ndax bëss bi mo koy waral kon doli effectif yi doli également leur présence sur le terrain ndax lool rek moy mëna tax liggéey bi aussi yemb ba lépp lo xamné produit bi lore la ñu mun ko télé génné ci ci marché yi leen li ñi jéxalé rek ci walu communication loolu aussi sàkku ngeen ko par rapport ak couverture médiatique bi au niveau de la RTS dinañ ko yëgal aussi suñuy kilifa ci bataaxal Sonatel ñaari ligne ADSL pour internet loolu foo naa ne aussi euh, dinañ ci jéem a taxaw baax fi ñuy daaneele rek mooy wax aussi engagement yi nga xam ne CD service yi jëlee nañ ko fi ah nañ ci góorgóorlu ànd ceeg Pastef borom bi nag mooy mottali waaye nag am nañ yaakaar ne suñ ci àndeek Pastef suñu borom mënuñu dimbale ba lii nga xam ne moom la comité d'organisation bi mëbët suñu borom defal ñu ko beneen bi nga xam ne aussi seen recommandation muy le suivi parce que tamit suñu jógee ci réunion bi dëgg la liggéey bi dina bari waaye préfet Mbacké mi ngi woon ci yoon wi waaye du tere dinañ ko jox bataaxal pour que suivi bi boobu tey jii moom mi nga xam ne moo gën a jege nekk dans son département nekk le niveau opérationnel nañu koy defal du ñu yëgal aussi lépp loo xam ne jafe la ñu teel koo yëg luñ si war a mën a jubbanti ñu jubbanti ko mais également nag fu ñu si am jafe-jafe aussi dellu si waat si yéen wax leen kat fii am nañ si jafe foo naa ne lañ koy dundee su ko defee nekk aussi ndax am na ci loo xam ne ñàkkul yéen mën ngeen ko cee indi en terme de plaidoyer ba mu antu mais suñ ko bokkee am yaakaar ne jafe-jafe yi mun na mun na wàññeeku noonu lañ xalaatee doxale mbir mi tamit ba suñu borom yóbbuñu seeg jàmm ba lépp loo xam ne ñaan nañ ko suñu borom defal ko li des di leen ñaanal également ah ñu suñu borom may ñu ngeen delluwaat jàmm ba incha allah rabi lépp loo xam ne yaakaar nañ ko ci bés bi suñu borom euh, defal ñu ko mais en tout cas engagement bi mi ngi fi te xam naa dinañ am pastef boo xam ne moom lañ ko war a ànde ndax noonu lañ ko doon liggéeyee bu ñu nekkee département de Diourbel mais incha allah fas yéene ko aussi continuer ko au niveau de la région de Diourbel ñu doon wax léegi rek foog naa ne préfet Mbacké egsi na peut-être nag euh, dinañ ci briefer après dans mon bureau mu xam yan tënk lañ fi tënk su ko defee moom mu defal ñëw suivi bi comme ni ñu ko xamee rek jafe-jafe jamono yi dafa bari ñu ngi ci waajaay élection muy préfet su préfet ci liggéey boobu lañu ne mais du tere nag dinañ ko wax li nga xam ne moom la ñu war a suivre et ñu ànd ko moom incha allah rabi dëgg la nag loolu moo waral euh, tardé bi mais yéen moo mu fekkee ko moi personnellement maa ne ko daal baal ñu démarré soo ñëwee la nga xam moom la ñu dinañ la ko loolu moo tax peut-être euh, te mu nekkoon ci beneen liggéey boo xam ne kilifa yi ñoo ko santoon ngeen xamee ko noonu mais du ñàkk bañ a ñëw ci teewaayam fekkee ko incha allah rabbi donc cadre yooyu daal lañ bëggoon yëkkati di ko di sakwaat ay ñaan bu baax nag ci mission bi nga xam ne moom kilifa yi sas ba suñu borom defal ñu ndam mu nekk ndamu région Diourbel yëpp donc ab Ibrahima Fall nag moo nekkoon préfet bu Diourbel moom nekkaat fii nag comme gouverneur région Diourbel kon foo naan liggéeyu Baye Fall bi laa lañ koy gën a laxasaayoo rek ànd kook ñëpp incha rabbi donc sëñ mi jox la kaddu rek nga defal ñu ñaan alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah وآله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Monsieur le gouverneur ñi ngi lay nuyu ci turu Serigne Sidi Mokhtar ibn Cheikh Abdoul Qadir mi nga xam ne moo ànd ak délégation bi ñëw te yor organisation màggal Serigne Abdoul Qadir muy kàddu yi nga xam ne kàddu yi sant la sant la ci dalal gi ak ni nga taxawoo liggéey bi sant mboolem chef de service yi nga xam ne ñoo fi nekk ak li nga jël nañ ko fi ci ay dogal jël ko fi ci ay pas-pas yoo xam ne bëgg nañ amal ngir niñ bëggee magal gi am mu amee noonu kon ñu ngi leen di sant ci pësteef boobu ci turu mboolem comité d'organisation bi nga xam ne ñoo àndoon tënk niñ gis ne mooy tax màggal gi organisation bi jaar yoon ndax ku ne xam na dayoob màggal gi ak la fay daje ci mbooloo ak période bi nga xam ne ci la màggal gi am mu tombeek nawet ak li ci nekk ci ay jafe-jafe ba ñoom ñu xalaat ba tënk waaye bi ñëwee li ñu waxoon lépp gis nañ ne monsieur le gouverneur chef de service yi jël nañ ci ay engagement yu wóor yoo xam ne dalal na xelu sëriñ bi kon mu ngi lay sant ci loolu ci turu sëriñ Cheikh ibnu Cheikh Abdoul Khadir waaye ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne mooy xalif général di murid te lépp loo xam ne ñi ngi koy def ñu koy def ci ndigalam di la ñaanal ci mission bi nga xam ne dénk nañ la ko yàlla defal la ci ndam di ñaanal mboolem ñi nga àndal su euh, préfet bu département Mbacké waaye sa monsieur Ndiaye sa adjoint bi nga xam ne suñu xarit la suñu wëllëre la ñu yàgg liggéey lool ñu ngi lay ñu ngi leen sant ñoom ñëpp di leen di leen di leen gërëm di wane ne nag liñ fi wax lépp lu ñu yitteel la loo xam ne waaye rawatina sax ci mu ci wàllu communication bi eh, liñ ci wax moom it ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax loolu moom sëriñ yóbbante bi sëriñ Saaliw la mu ñu ñu bàyyi ko xel waaye sëriñ bi it mi ngi beral ak cant monsieur le maire sëriñ Abdou Lahad Ka ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci lépp loo xam ne yitte la joo xam ne yegg na ci moom te mu nekk ci domaine am bi nga xam ne moom moo ko war a def mi ngi ciy taxaw ni mu waree loolu it ñu ngi leen koy seedeel kon di ko di ko sant kon daal xam naa ne kàddu yooyu kàddu yi sant la yoo xam ne sëriñ bi jotal na lool lépp loo xam ne xëy na ci mm, ak la ci ci nun ñii la waaye am nañ mbégte bu baax a baax ci réunion bi ni mu tëdde ak engagement yi ñu fi jël yoo xam ne dalal na suñu xel ci ni màggal gi war a tudd incha allah li ci des mooy ñaan suñu borom subhanahu wa taala ndax lépp ci loxoom la nekk euh, liñ fi liñ bëgg a def mu kàttanal ñu bañ man koo def ci lépp nekk loo xam ne njariñul jullit ñëpp la njariñul réew mi yëpp lay doon te loolu moo nekkoon kàdd yi nga xam ne ñu ngi ko doon wax ci turu ci turu sëñ bi